Touba. asalaamualeykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu baax te di leen te ñaanal sëriñ Sidi Muxtaar yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér. naka noonu di ko ñaanal sëriñ Abbas di ko ñaanal xalifa Baay Faal ak mboolem jabatu sëriñ Tuubaa gi yëpp. di nuyu bu baax a baax di am mbégte tey jàkkaarloog waa Touba TV Argentine ci seen studio bu bees bi ñuy dalal daloo tey te njëkk cee wax. di leen ci ñaanal rek ci barkeb xaadim rasul yàlla na leen ci sëriñ bi defal lu gën a kawe seen jortu ñu am ci lu gën a kawe seen jortu mu yegg fu gën a kawe ci seen xel ci barkeb xasida yi kàddu yi nag xam naa ay kàddu yu sant la rek muy bis bi ñu génn premier safar bi ñu doon amal te ko taxawee at mu ne muy bis bi bis bi njëkk ci weeru Serigne Touba Xaadim Rasul muy bis bi nga xam ne ci la 18 safar nekk kàddu yi kàddu yi cant la am mbégte lool Eh, àndoon koog waa fédération bi ci njiitul Serigne Yankhoba Gaye ak mbooleem jëwriñ yi ci nekk yëpp ak mbooleem ñi ne ci dëkk bi yëpp rek wax dëgg yàlla di rafetlu seen teewaay bu baax a baax baax ca bis ba ndax yooyu la wax dëgg yàlla bis ba kawe na ndax nit ñëpp ñëwoon nañ wax dëgg yàlla ba kenn amul foo toog kon loolu ak sant la comme ni ma koy waxee mbiri sëñ Tuubaa nag moom noonu rek la mën a demee amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am di ñaan bu déwénee ñu gën koo yaatal rek di sant ndax comme ni ma ko waxee saasu na rek sëriñ bu moom mënoo koo defal lu gën a kawe jàngal ko alxuraan jàngal ko xasida ñu berde saafonte balante àq te wax dëgg yàlla keroog loolu lépp amoon na fa kon ñu ngi sant bu baax di sant mbooleem ñi ngi ci àndaloon rek képp ku ci sonn mbaa nga def sa alal mbaa nga def si sa ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla nga ci dajee ngërëmul sëñ Touba sëriñ Touba mi fay yàlla na la fay kon ñu leen di sant bu baax di leen gërëm. xam naa ginnaaw bu loolu paasee dañuy soññee ci bis bi nga xam ne si mooy huit safar bisub ku tedd ki nga xam ne ñëpp xel yëpp ak xalaat yi ci la jëm ñu ngi koy waajal rek di ci soññee bu baax a baax a baax a baax ndax ku ne xam na ne bis bi lim fi mu toll ci ñun ak lim ñu mën a defal ndax ci la nit ñi di rawantee kon képp ku nekk ci dëkk bi rek ñu ngi lay soññ ci bis bi ndax bis bi amuñu bis bu ko gën a kawe ndax Serigne Touba comme ni ma koy waxee mosul woote ci lenn lu dul bisam bii na sant la leen ma sama borom kon amuñu dañ ciy def lu mën ak lu mënul kon ñu ngi soññi bépp taalibe ci fu waay mën nekk rek mu yéem waajal bis bi ndax bis bi kenn ku ci ne am na yéene pour def ko waaye Serigne Touba daa bëgg ñëpp barkeelu ci kon ne ci ñëpp taxaw waaj ko ñu jëm ca bis ba taxawal ko fii ci Touba Argentine comme ni ko daan taxawalee. kon ñu ngi ciy woo bépp bépp taalibe fu mu ci war a nekk rek mu ñëw ñu waaja nekk ci wàccaayu bis bi. xam naa ne loolu ay la ci bis bi rek ndax xam naa daan defaat yeneen plateau ak waa Touba TV Argentine waaye yooyu ay kàddu yu sant la sant la woon rek waaye jamono ji kenn mënul wax te waxoo ci bis bi nga xam ne moom la ñuy waajal ñu ngi ciy soñ sama bopp di soñ ñu mbooleem jullit ñu fas yéene ko waajal bu baax a baax ndax ci la nit ñi di rawante ci la suñ tiraangay àdduna ak àlaaxira ci la nekk kon ñu ngi leen ci soññ bu baax a baax a baax a baax. salaamaaleykum wa rahmatullah